Tata Fatoumata Fouta Tampi def ak benn xale bu góor à propos de la journaliste satu Dione alors man tout d'abord dama bëgg wax Tata Fouta Tampi ni ko man Tata Fouta Tampi li may wax nii c'est pas pour rentrer en clash avec toi euh, du pour clashante ak yow euh, du pour xuloo ak yow du pour nga jox ma ma jottali la ñuy xeex ak xiiroo du pour man ak yow parce que déjà je pense que yaa moom ak fuuf ok peut-être sama mu yaay nga I don't donc man dama la ji respect mais dafa am loo xam ne man rafetluwu ma ko parce que bu Cheikh Yérim Seck takkee Astou Dione loolu Cheikh Yérim Seck Astou Dione la bu Astou Dione ak Cheikh Yérim Seck divorcé wee loolu Cheikh Yérim Seck ak Astou Dione la Cheikh Yérim Seck bu takkee Astou Dione fekk fa ndaw loolu Cheikh Yérim Seck ak Astou Dione la yow Fatoumata Fouta Tampi jigéen nga jigéen nga jigéen nga yow waroo sax nangu que ce soit politique ou apolitique waroo nangu sax yow détail boobu di ñëw ci sa live nit di fa live naan astu jonn parce que si Cheikh Yérim takk amul ndaw yow waroo woon sax nangu loolu xam nga pour quoi parce que yow Fatoumata Fouta Tampi da nga am doom te ñun ñii ñëpp gis nañ sa doom ni mu la traité ci réseaux sociaux yi ñun ñëpp gis nañ ni sa doom caba ni mu lay def ci réseaux sociaux ñun ñëpp gis nañ ko teg man mii naq naqarul naa ko ba caba génnee fii di wax ak yow lu nekk mu yekk la man génn naa ne caba ndey du morom ndey du morom te ndey du mës a doon morom gis nga ndey bu doon tux ak màndi ka naam daggan na nga jël ci sa xaas jëndal ko jox ko parce que ndey du morom képp ku fi bëgg a raw def sa ndey morom barki xam ne jëlal gaal gi demal Nicaragua dañ lay rapatrier yow jëgal gaal gi demal ni Croix-Rouge dañ lay rapatrier ak foo mën a dem ci àddina ak koo mën a waxal nday du moroom ndey du moroom ndey dañ koy jaamu ndey dañ koy tarbiya ndey dañ koy dañ koy dañ koy bégal ndey dañ koy teral mais li la caba def ci réseaux sociaux yi man maa njëkk a génn wax ni caba amoo respect ci sa yaay te vie bi vie caba vie bi ma bëgg a vivre noonu vie de man mii maa ngi nii j'ai 30 ans ici c'est chez mais maa ngi am 30 ans maa ngi sama kër yaay sama kër dama ko tëj bi nekk Ngor Almadi dama ko tëj dama ko tëj ñëw toog sama kër yaay pendant un an maa ngi sama kër yaay dama jógee voyage janvier ba tey maa ngi sama kër yaay parce que dama nekkoon début de grossesse ma toog sama kër yaay wusin naa sama doom am na ñaari weer mais maa ngi sama kër yaay parce que man wóoluwuma kenn ci sama bopp ci sama biir ci samay doom lu dul sama yaay léegi man su ma gisee caba une fille de 18 ans même pas 18 ans xaw ma 18 ans déjà 18 ans yow ca ba musoo sëy nga bokk sa doom déjà dañ la ëmbal dañ la biiral parce que sëyoo li fi am la ñuy wax sëyoo dañ laa biiral yow ñu biiral la ca ñu biiral la nga jël sa doom sànni ko xaw ma foo ko sànni toog ci réseaux sociaux yi di di di def ay mèche ak kii ak kii ca ba amoo noonu tu n'as pas de noonu et puis yow ma li ma la waxoon laa lay waxaat ca ba rapproche-toi de moi ma fay la formation nga dem nga di jënd sa formation ndax nga mën a liggéey caba caba yow rafetoo caba du taat caba du ween caba du éloquence caba amoon lenn loo xam ne yow tey góor mën a la gis bëgg dañ lay fowe tu es un ballon de ping-pong tu es un joujou tu es un jouet tu es un yo-yo et malheureusement ta jeunesse te donne une fougue malheureusement c'est avec ta jeunesse que tu penses que bu àdduna bi wàccoon di nga ko téye ni mais caba noomel ba yow nga war a mën jël sa appartement nekk ci cité cité mixta bi ba ñëpp xam ne yaa ngi cité mixta di fa def lu la neex di chicha def lu la neex mais là c'est ta vie on s'en fout mais quand ta mère s'attaque à des gens qui lui ont rien demandé moi j'ai le droit de m'attaquer à ta maman ne doit pas parler parce que moom sa am na lu ko doy muy doomam fuuta mata tampi nit ñi waxuñu ko dëgg nit ñi waxuñu la dëgg ah dañ ñëpp la seetaan te man nag bëgguma dugg en guerre avec toi parce que man ragaluma la man ragaluma la maa la dàq wax maa la ëpp fit maa la gën a sañ te foo ma woo ma wuyu si la mais autorité yëpp kenn nawloowu la ñëpp la seytaan parce que en fait on te comprend pas tey yaa ngi fii tey yaa ngi fii tey yaa ngi fii tey attaqué attaqué nga ku nekk yow bàyyiwoo kenn mais anyway ça c'est toi mais encore une fois je ne cherche pas à rentrer en rentrer en guerre avec toi parce que c'est pas ça man taluma loolu mais simplement que quand je t'entends parler de Astou Dione et sa virginité dans ton yow tu n'as pas de virginité yow amoo koo war a xas si ndaw ndax sa doom bi nga jur amul ndaw parce que ëmbal nañ ko te yor na doom te yaa ngi yor sa sët kon lan ngay xasee doomu jàmbur ne ko amul ndaw même bu ko jëkkëram waxee danga waroon woo Cheikh Yérim ne ko Cheikh Yérim lii du sa wax Cheikh Yérim Seck def dafa juum parce que warul woon toog di wax ak kii que ce soit nag asu jonn amul ndaw franchement loolu loolu loolu loolu sa secret la yow ak sa jabar ba ngay takk astu ba ngay gis astu di ko bëgg ñun ñi ñëpp kenn fekkeewu suñu yoon nekku ci man sama yoon nekku ci yow ak kii Astou Dione parce que man Cheikh Yérim on se connaît très bien Cheikh Yérim Seck je te connais très très bien je te connais plus que bien je te connais assez bien je te connais trop trop trop trop trop trop bien te su ma waxee beaucoup de personnalités seront impliquées mais du ma wax parce que tu sais je sais et mon ex-mari c'est à toi tu sais je sais Ndiaw Fall sait tu sais je sais et Ndiaw Fall Tu sais, je sais, et Ndiaw Fall sait. Et je répète, tu sais, je sais, et Et si je parle, cher Yérim, je parlerai avec des preuves. Parce que ce qui s'est passé, non seulement ça entache l'image d'une personnalité qui a eu avec une personnalité, haha, donc non égalée. Tu sais, je sais. Et tout ce qui s'est passé en transition là, j'étais là, j'ai vu, je sais. Et j'ai toutes les preuves et je sais. Et ça va aller très loin. Donc pour ne pas qu'on arrive dans des débats houleux, dans des, dans des, tu m'as dit, je t'ai dit, parce que je suis pas dans ça, pour ne pas que j'expose des preuves et que me gagne un secret d'État. Vous avez intérêt, chérie Rimsek et toute votre clique là, à foutre la paix à Astudion. Et quand je dis foutre la paix, c'est de lui foutre la paix. Parce que l'imam, vous me gagnez, chérie, alors tu sais. Ndiaw Fall tu man sama yoon nekku ci parce que man te ko woon I don't give a damn te fu ma woo si na ah. je connais mes droits je suis instruite te tiituma ragaluma mais li ngeen def su ma ko waxee barki Seydina Mohamed yow du ma wax sax Cheikh Yérim Seck parce que je te respecte encore une fois et je n'ai pas d'animosité avec toi mais foutez la paix à Astou Dione qu'elle soit vierge ou pas on s'en fout on s'en fiche il y a beaucoup de filles qui sont vierges ici et néanmoins dans leur mariage même après leur mariage elles s'amusent à aller voir ailleurs Astou qui se Elle est journaliste, elle représente le Sénégal, elle travaille. Moussouniou Deg la pauvre dans aucun débat. Astou ne parle pas, Astou ne réagit pas, Astou elle se tait. Et moi, je n'accepte pas qu'on fasse subir à une femme qui n'a absolument rien demandé une certaine forme de, de, de, de comment dire, de maltraitance physique ou morale. Du ko nangu. maa koy waxal ba mu neex te di ma xam dafa bëri encore une fois Fouta Mata Ndiaye tàmpi nag yow boo bëggee boo amee loo bëgg a gérer yow en tant que kilifa jëlal sa doom caba génne ko ci seen mixaay yii yóbbu ko sa kër ci sa fu faakamata fu tampi faakamata fu tampi teel sa doom ji yow yoon nga sa doom boo war a régler ndax yaa ko juut caba yaa ko ëmb juróom-ñeenti weer yaa ko wasin yaa ko puus lii boo ko defee yow li nga def sa ndey dong la la caba di def loolu ñëpp di mën a wax teel sa doom ji nga yar ko caba weesuwul fu ñu koy jëlee yar nokk ko caba su ma nekkoon magam dama koy duma ba mu ba muy bëgg a dee donc ngay jël ay live naan ay Fatoumata kii ay Astou Dione amul ndaw ça c'est pas ton problème Astou Dione elle fait ce qu'elle veut avec qui elle veut d'accord elle a elle-même sa propre moralité elle problèmes principaux si elle a voulu divorcer avec Cheikh Yérim certainement que li mu gis et moi je ferai pareil si je me marie avec un pauvre type et je me rends compte que c'est un pauvre type mais putain je te fous à la poubelle pourquoi rester avec un pauvre type pourquoi rester avec un homme qui n'a pas de valeur yéen nga ngeen di jaawale illettré ak ana ak illettré ak intellectuel intellectuel kenn du ko téye ci ay yu ñàkk fayda soo bëggee jabaru intellectuel da ngay am tu dois être à la hauteur d'accord tu dois être à la hauteur de cette femme là quand tu veux une femme soumise va choisir une analphabète quelqu'un qui n'a pas fait les bancs kooku noonu loo ko day toog mais jigéen bu jàng da ngay wax A plus B mu ne la B plus C one plus one mu ne la two parce que dafa jàng Et nos parents ont payé cher pour nos études, pour que nous soyons des, des, des, femmes soumises à, à, à, une soumission qui est, qui est inconsidérable. On veut être des femmes soumises, d'accord, mais soumises à la limite du possible et soumises dans, dans la vérité, soumises dans, dans, dans, dans, l'égalité, on, va dire ça comme ça. Mais soumises à un monsieur qui n'en vaut pas la peine, soumise à un mytho, soumise à un voleur, soumise à un whatever. No, we say no. That's it. Moi, je ne compte pas, je I don't mais li ma bëgg dinaa ko am li ma bëgg dinaa ko am parce que man nekkuma ci genre jigéen ñoo xam ne dañuy toog ci sëy à cause de la société c'est pas possible ça c'est pas possible ça chauffeur bi ñëw na vous êtes dans le mariage à cause de la société parce que su ma tasee dañuy may ree dañu may lii we don't give a damn since you can pay your bills since you can take care of your family since you do whatever you want in your own pocket what the fuck are you doing on se dit la vérité On souffre en fait. Appelle-moi Malik. Et eh, allume-moi le truc ventilo là. J'ai chaud moi. Faut dire la vérité. Vous nous torturez. On est torturés. Et quand on décide de quitter, là où vous nous insultez de pute, elle n'est pas une fille bien. Quand tu épousais Astro John, chérie Rimset, est-ce que tu l'as traité de pute avec tes amis Non. C'est une fille bien, non te pourquoi quand elle, elle est partie là maintenant tu la traites de plus tu la traites de une fille qui n'était pas vierge moo tax nga bàyyi ko et tout maa leen ëpp coow fuuf xale bu góor bi ko doon wax Cheikh Yérim Seck Fatoumata Tam maa leen ëpp bruit fuuf sama coow du yem allume-moi ça le chauffeur il est venu le chauffeur il est venu maa ngi ëpp coow foofu man sama coow du jeex et je sais de quoi je parle je n'invente pas je ne raconte pas je ne diffame pas et si on me pousse à bout je ferai de mon mieux pour vraiment afficher toute l'histoire sur la toile une bonne fois qu'on est Je ne supporte pas qu'on s'acharne sur cette fille elle n'a pas voulu d'être elle, ne veut plus de toi chérie Yirim chérie Yirim c'est pas la peine de, créer un groupe et de l'insulter elle ne veut plus de toi passe à autre chose passe à autre chose et laisse-la refaire sa vie tranquillement qu'elle soit vierge ou pas que tu l'aies connue vierge ou pas on s'en fout et le fa ndaw dafa yaatu yow yaay dooméeraam ah de rien xale bu góor bi ko wax yow yaay dooméeraam yow jigéen juru la yow yaay mbaam yow yaay mbaam xuux yow doo dara yow doo dara te comme Cheikh Yérim sekk moo la génn loo wax loola man su may attaqué Cheikh Yérim Seck laa attaqué te barki Seydina Mohamed man astu gi ma xam bu ma ko génneewee bu ma ko génneewee Macky Sall bu dem février day toog ndax cas bii bu du ko fi bàyyi di dem xam nga président février la war a dem delloo réew mais ndax cas bi bu ma ko waxee barki Seydina Mouhamed li ma xam ci république bi dafa bëri te Cheikh Yérim Seck rek rek rek rek rek rek moom li ma la xamal bu ma ko fii toj donc laissez cette fille tranquille laissez Astou Dione c'est tout ce que je demande et je dis à Fatoumata Fouta Tampi là de s'occuper de sa fille qui passe son temps dans les dans les dans les dans les auberges ici sa doom ji téye ko mu ngi ci auberge Sénégal Ndiaye bi yëpp foo leen fekk fa caba téye sa doom ji téye sa taloo sa doom taloo sa njaboot yaa ngi tëdd tëdd yow politique doo ci am dara yow Sénégal fii politique doo ci am dara parce que tu sais pas ce que tu dis déjà tu n'es pas intelligente jàngoo jongoo tu sais absolument rien de ce que tu dis dangaa bokk mais du noonu ngay bokkee man nii maa la gën a jàng yow jàngoo dara amoo diplôme tu peux même pas te prononcer en français tu ne sais rien du tout you can say nothing And you represent nothing. Tu n'as pas d'employé, tu ne participes pas au développement, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu juste une tarée perdue. Donc, je vous dis là, vous là, votre bande là, si vous arrêtez pas là, je vous donne 24 heures. Si j'entends encore un autre live, TikTok ou whatever, ma dégg ko man damay génne avec les preuves teg ko wax ji jeex wax ji jeex parce que man j'en ai marre yéen ngeen nekk da ngeen cee bàyyi yow Fatou Tune ku wax nga génn wax ndax sa gémmiñ gu rëy gii ku génn nga wax yow noo mel sax Fatou Tune Fouta Tampi loo fi am. yow lan la fëtt nga nit ñi yow coow bu si yow doo liggéey sa doom ji caba nga xam ne wàllu lundi mardi mercredi jeudi vendredi caba 18 ans lañ ko ëmbal xamoo kuy bàyyi doomam yow doo lijjanti loolu fuuta tàmp yow da nga fàtte ne yaa ma ko waxoon ah putain on en a marre quand même on en a marre on en a marre ah. moi ah. ma xam dafa bëri ah ndax yow rek yaa fi am problème location di génn ñu lay ketal loolu yow da nga ko fàtte nit da am nit da ngay am ndax yow mënoo rëy làmmiñ te mënoo fay sa excusez-moi le le live a coupé parce que euh, j'ai eu des appels on m'a appelé j'ai eu euh, mon frère m'a appelé euh, il m'a demandé de me calmer il m'a demandé de pas rentrer dans des détails mais moi je ne vais pas reculer je répète et je le répète man dama bëgg xam ba xam man ci réew mi laa dëkk donne donne j'ai chaud ouf ouf ici j'ai chaud j'en ai marre moi mu pas allumer la clim parce que euh, y a le petit qui dort là j'ai chaud moi moi je dis que ci dëkk bi laa dëkk et je vais voir si dëkk bi Sénégal bi ñu nekk Sénégal bi am na loi wala amul loi et je n'ai pas peur parce que je ne vends pas la drogue je ne suis pas une drogue dealeuse je ne suis pas une voleuse je ne suis pas une menteuse je ne suis pas une escroque je n'escroque pas les gens moi je suis pas un escroc féminin, ok Je travaille, je gagne mon argent à la sueur de mon front. Et je ne me cache pas, d'accord Si ces gens-là n'arrêtent pas de s'acharner sur Astudiong, moi, Nabou, je sortirai tout ce que je sais sur ces gens-là. Et j'en ai marre, et j'en ai rien à cirer. De I don't give a damn. Parce que Cher Rimsek ne doit pas. Vous savez, quand c'est en privé là, quand c'est entre, quand c'est dans leur maison dans leur appartement whatever. Moi, je peux pas venir dans la maison de quelqu'un, parler. Mais quand c'est sur Internet, là, quand c'est sur la toile, attends, boss des ladies, boss des réseaux sociaux, je parle de quoi, de, n'importe quel sujet que je veux. Je parle de ce que je veux parce que c'est sur la toile. De la même manière que moi, quand j'expose mon problème, tout le monde en parle et je ne peux pas dire aux gens, parlez pas de moi, parce que, parce que problème futamata tampi def live tiktok ak benn xale bu góor xale bu góor bi neen astu ba ko yëreen yëreen yëreen sekk di takk amul ndaw loolu moo tax mu fase ko c'est faux et c'est archi faux loolu taxul nga takk ko taxul nga fase ko te xaw ma sax ba xam am na wala amul ay aadam gi ba dee même bu amoon ça n'empêche pas le respect que nous femmes nous avons pour Astou Dione c'est une femme elle est battante Astou taxawaaluwul ba futi Astou nekkul ci resto yi Astou nekkul ci boîte de nuit Astou dafay liggéey Et non seulement tu ne respectes pas la femme, et tu ne respectes pas la femme un jour, là, cette femme-là qui a un jour été ton épouse. Tu n'as aucun respect pour la femme. Mon lola si jangat. Parce que yow cher Yérim, bon amé jabar, nga nek gor, nek kilifa, nga djang, nek un intellectuel. Tu sais que ça c'est de la bassesse. Parce que Astou, elle a le droit de divorcer avec toi. Mon na dem Astou, yow yow yow cher Yérim, c'est que gatt nga. Yow gatt nga, da nga gatt. asu seeg asu seeg asu jonn gis na keneen beneen njool dem na mais lan mooy wax ci luy kaa bi ngeen bëgg ko jàpp di ko joxal maajoor indil maajoor lan mooy ndaw yow sa jabar ba nga takk am na ndaw lan moo ñu ci leer ñun dara leeruñu ci fii ñu bëri amuñu ndaw dañuy dañuy dañuy créer fausse hymen médecin yaa ngi fi dañuy créer ay fausse hymen di ut di defar lu ay ndaw donc c'est pas un problème de virginité mais un problème de dignité et de valeur tu n'as pas de valeur tu ne peux pas insulter ta femme comme ça publiquement ça se fait pas Toi, tu es un gentleman, tu es un homme et tu dois être un gentleman. Tu dois te comporter comme un gentleman. and that's it. Mais cette femme de foot tampi là, elle commence à m'agacer. Parce qu'elle, elle ne veut pas avoir une fille comme Chaba qui passe sa vie. Mais Fatou, tu n'as pas vu ta fille Est-ce que Fatou, elle voit sa fille Est-ce qu'elle a vu sa fille Euh, Binette Diallo tu sais man sa commentaire bi ngay bind nii je vais simplement te bloquer et te laisser t'occuper de ta journée aujourd'hui tu vois voilà je vais te bloquer et tu vas te barrer de ma page j'ai même pas envie de détailler avec toi mais est-ce que Fatma sa fille man peu importe le problème que j'ai je ne suis pas la hauteur de Fouta Mata Tampi man amu problème location je ne suis jamais venue ici dire aux gens payez ma location moi ok et je travaille je suis tranquille j'attends mon chauffeur il vient heure bu ma nekk laay xëy j'attends mon chauffeur et je vais me casser je vais travailler d'accord je suis pas comme vous qui traînez là vous avez rien à foutre j'ai un truc qui me fait mal et je sors et je le dis basta vos commentaires à deux balles là gardez ça pour vous et votre famille et je sais pas où là allez où vous voulez avec mais Fatoumata Diop Fouta Tampi elle doit arrêter yow Thiaba n'est pas exemplaire Thiaba n'est pas elle est loin d'être une fille exemplaire Thiaba Thiaba tous les Thiaba ay moromam yëpp là nous sommes le 2 octobre c'est la rentrée scolaire caba li jëntiwul saab li jëntiwul big li jëntiwul daal xam nga caba lu mu li chicha góor ak appartement yow mënoo am doom ju mel noonu bu pare nga bëgg taxaw di di wax ci ay virginité jàmbur faut arrêter faut arrêter cher dama am chance s'il te plaît faut arrêter faut arrêter faut arrêter je vous ai dit c'est un avertissement si je vous revois encore dans vos détails là ça va barder ça va chauffer hein Macky du dem février de Macky du dem de février moom tonton Macky du dem fii lay toog rek le cadre ndax cadre li ma xam dafa bëri ci dëkk bi te kenn du noppiloo te kenn du ma boole ak ay bandi amul lu xew ku ko def ma dugg fu fu ma war a dugg man tiitaloo leen ma man ragalu ma daar am a gangster yu beddeen noo de toog fi di débat si nit ñi kii ñàkk fayda ba dee